السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي جولي بليس وفيف خير جيمين دنو روتنا مبولم تالي مولانا شيخ الإسلام حاجي فراجي دي نيو في تسيني كوكو ينو تخلوش انسو تانك تاي موي تانك فور نيو ليرا لدينا خمدني مموي دي هم نون أمو لدول مولانا شيخ إبراهيم ديس شيخ إبراهيم ديس دي نيانا جالة مولانا شيخ الإسلام شيخ الإسلام يالله بودل فنان ما يكوير مو أكبولن مغامة كراكم آمين amul lu dul moom kon lépp lo xamanteni ñu ngi koy def te teguwul ci yoon yàlla dafa wax ci alquran ne in jaakum faasiqun bi nabayin fa fatabayyanu bu fekke ne ay nafaq ay gëmul dara dañu ñëw indi leen xibaar de leen ko leer bu fekke da ngay yakam ci génnee xibaar ku ci nekk ci ñun am na bay bu ñewol sa bay de na bala nga koo génnee da nga ko dem vérifier bam mu leen ñun serigne Cheikh Ahmed tijani Al Khalifa mooy suñu bay mooy suñu lépp mooy suñu woon mooy suñu lépp mom la moom lañ yaakaar moom la ñuy xoolee moo Cheikh Ibrahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne fitna mi ngi nelaw yàllaa ngi rëbb ñu koy ee te ñii dañuy yee fitna ndax yee fitna mooy ne aram loo xam ne amoo ci benn preuve bu la leer nga ñëw di ko wax tey bu ñëwoon benn kilifa génn àdduna bala nga koo wax danga ko génnee ñëw dem saytu ko ba pare doo koo génnee bi ñëw di dajale nit ñi dangay wax nañ leen ñëw ñu waxtaan ndax dem buñ koo defoon démb ci guddi dana gën a ñaaw ndax démb xol yi tàng na waaye jàmm moo ñu tax a jug ñu xam ne nit ñi buñ fanaanee ba ba set seen xol yi dina giir ñu ñëw te ku xam nag toppoon Cheikh Ibrahima Niass xamee leen ci yar xamee leen ci teggin xamee leen dina tooñ bañ ku leen tooñ ci nit loolu tax ñu bëgg ñoo yem loolu def jeex ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla xalak waa Sénégal ñu ngi ñaan yàlla yàlla xalak Sénégal yàlla xalak ak kooku ñuy wax Cheikh Yérim ci boppam Cheikh Yérim nag moom mom yàlla xalagoon nako way waaye dana ko xalaga ndax taxaw na ci télé bi ne mom da fay wor leen de man ni procureur bi nako da ko lu wor leen di ak vendredi samedi nga dem teuddé doomi jambour yi kon koku mom yàqkat yi doomi jambour la kon koku ku nek xamna ni fen kat yi fen kat nak buñ amé dañ koy wér ñep xamna ñi ay fen kat lañ ci lu wér ci ci yàlla lañ ko jëlé moy comme ni ma leen wax sax in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu ni ay nafaq lañ ni ay taskati rew lañ ñi ngi ñaan ministre de l'intérieur Aly jaay na jël ay matuwaay ci site yii nga xam ne mi ngi am ñuy wax loo xam ne du dëgg ñi ngi ñaan euh, monsieur Malick Sall ministre euh, de la justice mu jël ay matuwaay ci lii nii di ci site yii nii mën na fajal suñu bopp mais duñ fajal suñu bopp ndax suñ sëriñ li ñu jàngal mooy yar ak teggin ak yaru ñi ngi ñaan tamit képp koo xam ne lii dafa aju ci yow ñu ngi ñaan monsieur Ablaye Diop ministre de la communication mu jël ay matuwaayam ci site yi nga xam ne dañ fay ñëw pour jaxase askan bi umma boo xam ne lu néew néew néew néew néew néew néew ay centaine de millions ñu ngi topp sa ginnaaw dëgg-dëgg boo ci wax dara war ngaa xam ne nga wax ñun nag li ñu yàlla may mooy suñu kurus danañ ñaan ko ñaan yàlla ba gis ne ko ñaan duñ ko toj duñ leen saaga duñ leen wax dara waaye yàlla mi leen fi indi dana leen xalak digg bëccëg nga kam te yàlla xalak na leen ndax moo tax mu indi leen ñuy wax loo xam ne du dëgg te yàlla am na ñuy waxati dëgg te ñu ngi ñaan képp kuy taalibe Cheikh Ibrahima Niass foo mën di nekk ci adduna bi na nga boycotté site yi ñuy wax Sunico na nga boycotté ki ñuy wax Yérim Post te caga bu mag boobu ñuy wax Cheikh Yérim jiite ko ki nga xam ne dafay or lundi or vendredi samedi mu def tëddee doomi jàmbur moom loolu la xam ci loolu la nekk ak chantage président yi loolu la nekk ñun kilifa yi lii mooy li suñu devoir ñun comme ay taalibe kilifa yi leen war ñoom danañ ko def ñëw nañ ba fii nag ci dox tànk jàmm bi ñëwee ba fii pour fëggalee ñi ñëw toog ak ñoom wax ak ñoom tànk jàmm ci jullit ñi danañ xam du ñoom rek nekkul su fekkoon dañuy wax leneen du ñëw ci ñoom mais tànk jàmm la ñëw pour jox si incha allah ci jullit ñi waaye dinañ jël procureur de la république ndax li leen di xaar xam nañ ko waaw li leen di xaar kilifa yi dinañ ci jël matuwaay ñi ngi ñaan yàlla taalib yëpp nañ leen ñaan yàlla heure buñ julee heure buñ musiba nañ leen ñaan yàlla yàlla xalak leen yàlla taal leen digg bëccëg ndar kam ministre de l'intérieur ne jël ay matuwaay ci ñii ne jël ay matuwaay ci yàqkat yi ministre de la communication ne jël ay matuwaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy yàq deru communication ñoom ñooy yàq deru presse ñii yàq deru presse la parce que démb am na ci ñoo xam ne dee nañ sax biñ déggee lii ñoo xam ne cardiaque lañ amee léegi xalifa bi dafa noppalu ñoom dañoo tiit ba far noppalu fa kon ñu ngi lay ay doomi jàmm kon nañ jël ay matuwaay ci ñii ñun nag jàmm moo ñu tax a jug suñu kilifa yi jàmm lay mosul dégg taalibe bàyyi buy toj mosul dégg taalibe bàyyi buy rajaxe mosul parce que ñun nit ñu yaree mooy jàmm dem leen ci jàmm ànd leen dee leen dox ci jàmm dee leen wax jàmm mënuñ di wéddu salaatu fatiha sax di def xëy dañoo yem nag ñi nga xam ne ku leen laal ñi ñi ñi xëy fippu kenn du leen laal waaye nag gis nañ ne matuwaay yooyu nekk bu ministre de l'intérieur jëlul ay matuwaayam ñun danañ jël suñu matuwaay ñu ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi ñaanal yàlla Mawlana Cheikh Islam Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim al Khalifa yàlla guddal fan mag rakam la woon tamit seen ñoo koy tàggee te ñoom ñëpp danañ tàggee seen bàyyi nag ñoom ñëpp danañ tàggee seen bàyyi ba pare ci doo ko tàggee bàyyi bàyyi mu ne amul ku dul dee ku dul dee amul waaye nag yàlla ñi ngi ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu ndax suñu njëriñ la ñun njëriñ yi réew mi la mu ci lu xam téye kurusam koo xam ne lu ñaan yàlla ci kurusam mu nangu du ñaan mukk lu bon waaye de danañ ñaan yàlla yàlla xalak seeni ko te nag ñaanuñ ko ndax seeni ko daf ñoo tooñ te mën ngaa fayu yàlla dafa wax ci alquran nag فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به سنن توني نين فايو كول امني كوم ني لن توني كون نك سي فايو بوب لا نيك ني ني نيان يالا يالنا يالا خلق سينكو يالنا يالا خلق تياغا بوم ني واخ شيخ يريم سك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Sheikh Ibrahim ñëwuñ fi yore benn violence pare koy def dañoo ñëwoon ay kilifa yi pour toog ak kilifa yi ñu jàkkaarloo ñu waxtaan ak ñoom ndax damaa yaakaar ne xibaar bu yem ni li ñu def ñoom loolu yem ni cent millions personnes ci àddina bi ci yéggi leen ak def leen ay yu baaxul ak wax ñoom lu dëgg damaa yaakaar ne képp ku ko def waroon nga mën a ubbi say buntu pour débattre ci loolu wax lañ def ñu ñëwoon pour wax ak ñoom ñoom songu ñu dañoo wax ak ñun ñu ñëwoon pour wax ak ñoom laaj waaye gis nga ko waneete nañ seen jikko ndax li leen tax a bind ñu xam moo tax bu ñu ñëwee pour ñoom ci jàmm duñ la wuyu. loolu seen melo loolu seen jikko la. ñu li njëkk mooy li bi yëpp na xalifa bi mu ngi ci jàmm ci biir yaram mu ngi ci biir hmm. sax bëgguñ ko woon waaye lenn ci njabootam fexe nañ ba génne ko ci bi muy mu mu hmm. ci jublu pour. mooy faral mën a firma a xëy lii loolu ci la taalibe yëpp xëy même taalibe bàyyi sax bi ñu xëyee ñoom ñëpp dañoo liggéey personne yi ngeen gis fii ñu nekk fi quelques nit lañ yoo xam ne dañoo jege université bi ñu ko déggee génn université ñëw ak ci ñun ñu bokk ci jotaay bi pour taxaw waxtaan ak yéen li Cheikh Ibrahima Seck wax dafa doy sëkk Sénégal ak lay ñaan nga génne sama kër gi ci loo xamul mm-hmm. ñoom de xamal nañ ñu lu baax waaye duñ ko wax xamal nañu ay victoire bu ñu wax. barki démb dajale nañ ñu jege vingt millions ci diggante Abuja ak Kano. xanaa du xibaar la ñuy joxe. waaw dinañ tere joxe xibaar boobu. barki démb jàng nañ soixante quinze mille. et quelque ci ay jàngal ko réew mi. jàngal ko borom réew mi jàngal ko ñi dëkkee réew mi jàngal ko Afrique pour def ko pour ko jàmm. te ba léegi ko ñoom xibaar taxul leen di jox ñoom wax lu dëgg ak yàq ak jaxase réew mi ak wax lu baaxul moo leen tax a jox waaye ñu ngi leen xamal na ñun ku ñu jox ci jàmm fekk nga ñu ci ndax ñun suñu sëriñ bi cheikhul islam la tudd. Mhm. cheikhul islam sëriñ yëpp islam la l'islam ci tur yàlla bi ñuy wax bàyyi wax asalaamu koo xam ne yow sa bi l'islam la la la la symbolisé lépp yaay sëriñ bi te l'islam salaamu la symbolisé. Mhm, kon kooku mel noonu. wax dëgg yàlla ay taalibeem duñu xeex duñu def dara mm-hmm. bi ñu gisee ñu dem groupe sa daw ñëw fii waroon na ñëw ubbi mm-hmm. xam nañ ne koo xam ne du muy ñëw mu ñu ne kurus rek am mm-hmm. moom dañ ne daal ñun ko danañ waxee foo xam ne danañ ko dégg ñoom liñ bëggoon a wax ak ñoom ko waxee feneen foo xam ne ba xam xibaar fi ñu ko rek source boobu lañ doon wóor ñàkk a nekk ci dëgg na moo leen tere bi bu ñu ci ndax ñu ngi ubbil ku fi ñëw indi junne wala ñaari junne wala koo xam ne ab bu xaaba nga da ngay ñëw fii doo waxi caaxaan dañ la ubbil pour nga wax say wax waaye ñun ñi ñëw nag pour waxtaan ak ñoom ci xibaar bi nga xam ne dara duwut ci dëgg pour leerlu ko leeral taxul leen ay jóg seen site bi seetu leeral li gën a am solo nag mooy li Cheikh Ibrahima Seck wax mooy ñaari site yi na ngeen leen ko tëddeku seen ko dégg nga yéen pos-pos duñ duñ duñ seeni dara seen boo xam ne xalifaam l'islam bi tey ci kaw suuf xalifaam Cheikh Tidiane ci kaw suuf xalifa Mawlana Cheikh Ibrahima ci kaw suuf koo xam ne mi lu ëpp mi nit ñu ngi dëgg dëgg dëgg kooku ku mën a bind ci moom doo wax li nga wax biig ci guddi hmm. waxi caaxaan yoo xam ne lépp ay kàcc la dara du ci dëgg kooku kuy taalibe bàyyi na nga ko wëtt dëgg hmm. bu leen ci yëgle bu leen ci def annonce bu leen jëflanteeg ñoom bu leen leen seetaanati hmm. bu leen leen seetaanati donc lu taalib bàyyi yëpp nañ leen baax waaw ñun daal nañ leen boycotté ñun daal suñu digganteeg ñoom fi mu mooy ñaan leen yàlla ni ko Cheikh Ibrahima Seck waxee rek ndax kat ñoom nit ñu yéene moo gën a bon ñun leen wax waaw liñ leen ñun suñu yaakaar yaak naa laaxira lañ fi bëgg a jëlee te yàlla jëlee bu ko fi te du fi daaw a jëlee te yàlla guddal fanam da bàyyi ko fi ñu teew nii ñu ngi leen di seetaan yi caat bi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi jëm feneen fu ñu faagee que ne lii dana jàllal asalaamaaleykum wa rahmatulah yow monsieur ne ne barki démb boo jaay soixante quinze mille cas mille et quelques jàng nañ ko Médina te amul kenn ku ko ci wax. tekki ñoom ah bu ñu ko xam ñetti fan. bu ñu ko teg ko ci loxo al imaamul akbar ba pare ëpp na loolu sax waaye liñ jot moom mooy loolu. loolu bi mu jeexee bari ki Demba Ndiaye fii ci Dakar kër sëriñ yëpp tànn nañ fa juróomi xale ñu indi leen ñuy def concours alquran boo xam ne buñ ci paree dafa am ñu war a dem représenté Sénégal fële ci jaay euh, Maroc bi juróomi xale yi Médina Baye indi. pay beeg deux beeg trois beeg cinquième beeg sixième yëpp mooy juróomi xale yi Medina Baye kenn moo ci jël troisième rax leen te kooku du alquran lépp la su ñuy bind du bind loolu. kon bu kon ñii bëgguñ dëgg ci kër gi ay nar ay fen ay naka su dul noonu lañ bëgg. waaye incha allahu adduna du dañ mukk ñiy pexe di pexe.

Thank you.